li ma mana mën wax mo la affaire ñaari tur ci réew mi man d' ma sax ñu naan ay ñaari tur lenn li affaire yi ragal la affaire yi tapet la tapet wul nit taxaw sa kanam jël position ku jigen nga bëgg ka ragal nano, nan ko ki, nano ni nan sutu amul sutura il nous emmerde les góor jigen la man mako wax te góor gi jigen bu ci wax dara ci radio sociaux yi fu ma degee woon naa la news ba nga teud fi bank ñi dañ fi bax ne ñi yor xala laaw xaar rasulaay dañ wax ne li mo am dañ wax ne góor jigen bu ko nit nekké sim rew bu kenn nangu mu dugg kër xam nga ndax lan bu duggee sa kër même boo toppee tànk toppa si ginnaaw góor jigéen xoolal ay paam fa mu koy teg nga bañ ko fa teg sa yeesu soo ko fa tegee di nga ju julli ñeent fukki guddi te yàlla faalew la sax waaw kii ne boo kan boo may nii bu bu dëggee nga tegaat fa sa tànk yàlla rëbb na la do doo ko moytu ku yar sa doom na yar si ngóora bu waree demee noonu réglé ko du du du du ban maa ko wax de dama dégg ñu ne mag ñi ne soixante six salaatul fatiha soo ko defee bu àndax bismillahi rahmaani rahim def ko ni ko war a defee soo juree doom na nga jël def ko si kaas ñu tog def ko si gébiñ gi bu weesoo loolu ndox mooma nañ ko buñ ko sangee ba pare nañ koy yelandi àndax moom ñu ne diine da si jiitu si moom te ku jiitu si moom ku jiitu diine jiitu si moom mu baax lu tax ñu bëgg bàyyi lii fi alxuraan bàyyi bàyyi lu bàyyi affaire ñàkk fayda góor jigéen ñu ne dañ koy tuddee ñaari tur bu benn ñaari tur benn tur la am góor jigéen am kiwuñu ko sax point barre dagguñu ko may demandé pour que Sénégal gol jigéni waxuma pour que sénégalais bu fu ma gisab góor jigéen tóor ko waxuma pour que sénégalais bu fu ma gisab góor jigéen tóor ko waye kenn ku nek bu amé ab gol jigéne ci kërëm famille ba sen bop nañ ko njetta di ko dóor suba ngor mu réglé waaye di dof dof lu da nga len gis ñu sol ay ay marinière top ci mbéddé ay lan lañuy sol chemise masqué wu fu ñu ñu nekk ñu daaw fa sa des te fa ñuy dem duñ fa def lu baax foofa lañ leen war a fekk bu nu organiser ndajeem góor jigéen sénégalais ñoo ñoo war a ñëw waxuma ñu toppa di reexe def yëpp ay direct rek tap tap tap bu yàggee nga dégg yuux ay tapet leen sama copain ci sunu groupe whatsapp bi dañoo organiser ben nattu vip natt bi ku tegg 10 millions nga yow 10 millions amna ñu ñaari mari yi ñëw tay ah te ñom ñaar ñep dañ leen wara saw ma lank yow dang may xéñ ci yow la abonné yaay sama réseau wa lëz mom ni lañ koy bàyyi lëz mom ay bëttam barké lu dara dé yow dal sa jëkkeur defati na marina indi na fi beneen estasier bu Bes. xam nga yifi jotone nek nekk dafa jeex yi rek ñoo fi des kon daa ko ngoon seen ci bi amul lu rafet. xala bu jigéen boobu sàcc kat international what way luma ci wat bo may gëm nga gëm bo boo ma gëmul ya xam. gis nga kenn ki. Hmm. woo na exam ba mu ngoogu di. gis si eh? yow ma yow bitig baa ngi toj. bu dig bi ma bëgg na may sa way yow. ye ñaar da ngeen defante da ngeen defante defante len defante yaangi nonu defante boobu sax wakiilu saman sappude saman loy def fii kele manti waccan kincong rompa capan kincong man amu benn maam bu juddoo si dama ne la bu ma waxate nga da ci teg baat ok kon loolu la tekki